alxames yal na yàlla mottali lépp te def ci jàmm te yàlla def nu dëgg dëgg taalibe sàmmal nu suñuy pas-pas musal nu ci musiba yeeg balaa yeeg yi wëndeeloog yëpp tubaarkalla eh, ngeen di faral di bari jàng ayatul kursi rek ko loolu la ma sëñ Babacar waxoon ku ko faral jàng incha allah lu ñëwit fa la lay waaw dee leen ko def téeméer suba fanweer tisbaar ñaar fukk ak juróom tàkkusaan ñaar fukk timis fukk ak juróom gée fukk muy téeméer mun ma ku ko saxoo doo dee dee gu ñaaw doo dee deewu mbetteel ngay commencé par juróom par fanweer di wàññi par juróom waaw daf ni suba fanweer ayatul kursi tisbaar ñaar fukk ak juróom tàkkusaan ñaar fukk timis fukk ak juróom gee fukk muy téeméer di jàng ci la nag di di muslu nag muslu ndax itam nun ñi sëriñ si lu ñu leen sànni te yeggul ci ñoom ci ñun la jëm si dangay ñett sa bopp bi euh, dina si di baax di muslu nag bu baax a baax di ko boole nag sa bokk yi nga bokkal xadara bi yépp den ci yéene waale waaw nga leen ci yéene waale nag yow itam tabaarakallahu yal na yàlla defar lépp yàlla nangu suñu taalibe te boole ñu ci taalibe yi gën nekk taalibe te bañ a nekk taal ba waaw taalibe ak taal ba du ñu benn